ah oui comme ni ma ko waxee rek loolu du ci man a ñàkk avance yi bari na mais ku mel ni Lac de balaa may ñëw ci combat bi taxaw sax ku mel ni Lac de Guiers numéro 2 aussi. Mhm. bokk na ci mbër yi nga xamante ne instant bi war na am avance. Ah boobu ak léegi doon nañ fi wax digganteem ak Reug Reug. Ah ba léegi Reug na ñaari avance doon nañ fi wax digganteem ak Franc boobu moom moo doon bëggul mais adversaire yi ñu ngi fi Boy Niang Lac de daf ko daan. Mhm. Tapha Tine mii. Lac de Guiers da koo daan mhm. te tey ku ci nekk yaa ngi ak avance di gundaandaat. waaw mujjee daan ëmm seen. mujjee daan ëmm mm-hmm. seen. ak Modou Lo Modou ko par avertissement mu nuyul ak moom. Mm-hmm. daan Siteu. daan Siteu. su mm-hmm. le <laughs> problème booy ñaar instant kii la gën instant bi mu ngi ci trois victoires d'affilée la yaakaar na su que depuis 2018 mujj ñàkk. 2017. moom ak 2017 euh, euh, waaw. 17 2017 wala la 2018 la mu ñëw am combat. Euh, kii. Mamadou mhm. waaw am na solo. Euh, Lac de nag moom wax dëgg yàlla ay mbiram nag moom yàllaa ci des daal. <laughs> parce que itam vraiment bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu waxante dëgg ndaanaan la ah. ndaanaan la la fi am. Mhm. benn bu. bu ko ma seen daan ak benn bu ko Modou Lo daan par par avertissement mhm. muy ndaanaan boo xamante ne mu ngi moo ngi moo ngi moo ngi wane boppam parce que ay morom yi mu départandul yëpp euh, bëri nañu roi des arènes titre roi des arènes sauf moom mhm. euh, euh, lii problème bi lan lan moo manqué Lac de Guiers yan tànk la Lac de Guiers war na taxaw te taxawu ko fan la Lac de Guiers war na tollu te tolluwu fa Mhm. Euh, gis nañu mu toppoon fi benn adversaire du yàgg yàgg yàgg bay bind ci tisetam kaay ñu bëre Gris Bordeaux looy mhm. ragal. neex sax a la war a waaw mais moom itam dafa bari lu muy bañ torop parce que Franc bëgg na ko Reug Reug bëggoon na ko Euh, ki nga xamante ne mooy Ama Baldé bëggoon na ko fi ay jamono. Hmm, ah hmm. Euh, bu dul loolu ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi topp ci ginnaawam di ñëw ñu ngi fi ay ku mel ni Serigne Ndiaye bien vrai moom lay dépendre parce que moo raw Serigne Ndiaye. non Lac de Guiers adversaire am du Serigne Ndiaye bu ñu waxantee dëgg. adversaire am du Serigne Ndiaye. waaw d'accord d'accord Lac daan Eumeu Sène daan Boy mujjee daan Siteu ñu koy tudd tudd Serigne Ndiaye nag wax dëgg yàlla. d'accord Serigne Ndiaye suñu waaye la bëgg nañ ko trop. waaw comme ni ñu bëggee yeneen bëri waaye nag adversaire u Lac génnul VIP pour l'instant. d'accord de force fa ne bul bul fàtte ne bul fàtte ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci grand contre petit. waaw ñu ngi ci grand contre petit. am na am na combat yu fi taxaw yu bëree bëri waru woon taxaw. dëgg la Franc Bombardier waru woon taxaw. waaw ah. waru woon taxaw. parce que ñu ngi doon wax ah. Franc Coins. Sa Thiès Eumeu Sène waru woon taxaw. non boobu d'accord ma. d'accord. moo li man a waxoon bee paase rek. Mm. wute gis bu fekkoon damay damay damay ñëw fii ñëpp d' accord ak man ma toog sama kër bañ ñëw. lii mooy tax waxtaan bi. dina la jox ay raisons yu tax d' accord. waaw waaw ah, da nga koy bàyyi mu yeggale. ndaw bee neex a jàngale pël. waaw wallaay ndeysaan du mën a ñàkk <laughs> benn dafa jël dafa jël dafa jël màggam. kan. Balla Gaye Balla Gaye de. moom ëmm de waaw def na ko. waaw le de février 2000 2009. 8 février daan ko 8 février 2009 daan ko. Mm-hmm. jëlaat ko daanoo daanal ko 5 avril 2015 hmm. hmm. muy doo defet jëlaat Lac de jëlaat Balla Gaye 2 ñu war a bëri troisième fois. Hmm. combat ba yàqu. combat ba yàqu. ci kan la yàqu ci Balla Gaye numéro 2. parce que moo dem ba combat bi jege bu mu mu ne. Euh, dugal médical dafa blessé dugal médical. dugal médical. te combat bu dafa war na leer ndax jëloon na avance bi ba pare dañu war a bëri troisième fois. lan moo tax ñu bàyyi avance booba jox Eumeu Sène Sa Thiès. ok. raison yooyu laa tax ba ne Eumeu Sène Sa Thiès waruñu bëri. foofu nga ko teg foofu laa ko teg. am nga ci droit de. la déggee waaw Lamine boo bëggee dégg-dëgg làmb nag moom <clears throat> chaque jour boo ci waxee rek dañ daanaka dañ naan dafa am foofu fee teg wala dañ lay keewee mais man li ci sama gis-gis mooy. lamb ji daa am kumba mu am ndey kumba mu amul ndey rek mais wax dëgg yàlla bu fekkee ne preuve ci làmb kenn gënu ko koo def. parce tamit wax dëgg yàlla lëg moom loo ko bañ bañ seedeel ko. Euh, gàtt geenam ak mën a daw ak noppam yu gudd. parce que tamit boo dee xool tey parcours VIP bu fekkee ne da ngay def classement ci cinq premières yi wala quatre premières yi ci lay bokk. parce que moom nga ci am ci gën a néewi défaite wala yàlla dogal. boo dee xool tafaatin ay ngay wax boo dee xool Sa Thiès boo dee boo xool Boy Niang 4 ngay wax wala 5 boo dee xool Balla Gaye boo dee xool Modou Lo 3 ngay wax boo dee xool Gris Bordeaux ay diis ngay wax. moo ci gën a néew ay defet. te nag bu bu fekkee ne da nga ko xool ci kaw gars yu bëri da leen faa daan de. Ah. ñi ñuy tuddee ay VIP. Mm-hmm. Mm-hmm. Eumeu Sène daan na ko ñu niil mu daan Eumeu Sène. Mm-hmm. daan na Tapha Tine. daan na Siteu. daan na Boy Niang. waaw ñaata victoire la fa. bari na kenn ëpp ko fa ay victoire donte Modou Lo daan na ko fa ñu mat si niil. mais man comme li ma waxoon rek laay wax man dama gis ne comme. dama xalaatoon ne moog Reug Reug mooy taxaw. boobu ak jaadu waaw waaw moog Reug Reug laa yaakaar woon ne mooy combat bi. mais bi demee ba Reug Reug nag jël ki nga xamante ne mooy Boy Niang numéro 2. maa ngi doon xalaat combat Lac de Guiers numéro 2 ak Gris mais day am combat yoo xam ne amateurs duñ ko bëgg day am combat yoo xam ne promoteurs yi duñ ko bëgg. Hmm. mais man xam naa ne carte gi bu gaawul tas Lac de numéro 2. adversaire bi nga xamante bi ni moo gën a jege pour mu bëri ak moom le premier mai la sama wax balaa dellu si ba tey. si effectivement si diggante Franc ak Bombardier du bëree Bombardier nag. Mm-hmm. Franc nag mm-hmm. bu fekkee ne dafa daanu la dëgër du ko jël. am na ku may woo envoyé ma message envoyé la wala mm-hmm. bu fekkee ne Franc dafa daan. combat ak la dëgër day taxaw parce que boobaa amatul kenn kuy seexlu Franc parce que grand contre petit lay doon. sur bu dul loolu tafaatin lu mën a jëlee ci Balla muy defet di match dafa war a jël moom moo war a ñëw ne la dëgër de kaay mu fayu. Lac de Guiers waratul topp tafaatin naa koy lii Gris Bordeaux essange ni moom Lac la Guiers combat jànq la boo xam ne dafa war leer bu dul dara sax tey mësuñoo bëree mësuñoo bëree dafa nekk combat jànq quoi en tout cas daal gars yi nañ fexe mu am combat parce que tamit ci làmb la bokk am na lu loo xam ne bu demee bay am di am rek am na benn kàddu bu ñu doon wax dañ koy xeex dafa def nii dafa def naa xam nga yooyu nag bu amee gars yépp am combat sauf moom day am lu muy nuru kon tamit na ci gars yi jàpp pour mu mën a bëre quoi na ci gars yi jàpp pour mu mën a bëre bu karnul yaa ngi dégg waxtaan bi Lac de Guiers nga mën a bëre gars yi yëpp ñu ngi am combat mm-hmm. ñu ngi am ñaar ba ñetti avance moom mënagul am mm-hmm. li may wax rek am ci mbër yoo xamante ne bëgguñu ak moom aussi promoteur aussi di ko taamu mooy li may rek gis nga li mu antama aussi dafa am solo lamb moo gën a naqaree wax tey Sénégal mm-hmm. parce que koo wax bu ngeen xawee a gis-gis moo am fu mu téere la te yaakaar naa ne tey kuy liggéey ci lamb tey Mm-hmm. te mënoo wax dëgg. Mm-hmm. wala mënoo wax sa gis-gis. wax nag li ñuy gis des fois mooy baax wala moo jaadu. wala mooy dëgg mais kooku mënul ko bàyyi. assumer ses responsabilités dafa am ay manquements yu tax tey yi ndax jëwuñu ko. Mm-hmm. parce que tey mun nañ ne bu nekkoon tey kuy luy jaay tey mën nañ ne or la waaye par rapport ak bu làmb léegi tey. Lac de day nekk preuve par rapport ak système bi mbëri di boo xamante ni tey mënuñ ne am nga public. mbër boo xamante ne mënuñ ne signature di nga neexal. walaay ci laa mbër boo xamante ne mënuñ ne boo tuusee nit ñi kontaan amateur yi kontaan. mbër boo xamante ne nit ñi di ko challenge di ko utiliser. kon boo te cinq yooyu yëpp mën na ne amu si benn. mais mais Bokar suñu borom mayewul lépp de am nañu fi amul caaj nag. suñu borom mayewul bu dul dara sax Lamine te la su mënul am combat tamit. Lamine waaye doguma la de ñi tey ñu dëkk Guédiawaye population bi am nañ ci part de ak promoteur yi fa ne. a jóg topp ko. voilà mais li ñu koy toppee aussi est ce bu dee challenge da cee nekk. mi ngi daan xam nga challenge bi lan la. waaw yow mii mosoo def sa miniature miniature ci la de ñu daan ko ba toog si kaw. et puis Lac de Guiers bokk na ci mbir ñi gën a seetaan YouTube. ah loolu lay wax ji de. xam nga problème problème bi mooy par rapport ak système bi promoteur yi di tëggee foofu laa njëkkee. Mhm. maanaam promoteur yi Lamine yoo xam nga li ci làmb. Mhm. ndax la gerte tey su fekkente dem nañ bay dox combat am ak rëg-rëg ñi ñu mhm. man tey mu jël kase boobu noonu tey wàññi trois millions wala mu wàññi quatre millions bëre sax moo gën mu bañ a bëre. tey boo ñaatee lu tax estafam nangu tey bu bëri rëg-rëg parce que dañ dem ba xam ne on est à la recherche du profit maanaam wut wutum xaalis la. li ma waxoon benn waay rek ñu fekk ñu waxtaan si cadre Ama Baldé ma ne ko du roi des arènes kese. waaw ah waay. ba nekk roi des arènes pare amoo dara amul ah, sens. bëri yow amoo lu ñu ne diw moom moom li mu ne ko amul sens. et puis Boy dem na ba yegg au waaw kon Boy Niang dem na ba yegg au sommet. Ah dem na ba yegg président. boo Niang mooy vice président ala ci làmb mooy vice président parce que moom mujjee bëri combat royal. Mm-hmm. te mu ngi enrichir ci làmb mu ngi am koom-koom ci làmb mu ngi réaliser si làmb kon man côté boobu noonu laay waxee. Mm-hmm. kon bu fi nekk nag gloire c'est bon quoi mais nag am loo def sa poche dafa am lu ne seen ginnaaw. Mm-hmm. te ñu aussi bu fekkee da nga am staff aussi ñu ne sa ginnaaw aussi di sonn yow boo bëree ren balaa nga bëri waat mu def deux ans. sa waay gars yor njaboot yor famille yor man Lac de Guiers su ma ko amoon reproche bu ma koy def. Hmm. maanaam combat Reug Reug bi waru ko woon a bi na quoi juboo amoon na. waru ko woon yàq. non juboo amoon na sax affaire baa xaw a yéex rek am na ay détails yu am ci suuf yoo xamante ne tey. waaw na ci li tere juboo amoon na entre moom ak Reug hmm. na. en tout cas ak a xew c'est am ku may classé commentaire yi. Hmm. mais dañ koy nangul ak. ah non non yooyu moom jërë parce que mbër <laughs> day bañ a daan mbër day bañ defet mais nag malheureusement pour moom xam ma nag ban stratégie la war a mëne tey pour mun a bokkaat ci course gi parce que dafa bokk ci course gi parce que la ah tey Lac de Guiers Tapha Tine que comme moo ko Ama Baldé bi sax problème coow dugg na ci Jules Baldé ne fekk maa ngi dund combat bi du am su ma newoon am moom damay bàyyi boobu noonu hmm. mais kii di Tapha kii di Gris kii di rëg rëg revanche sama Boy Niang ñoo nekk a war a a neex la moo Gris Bordeaux sama gis-gis tey combat yooyu war ko woon raw sama gis-gis daal mooy Lac de Guiers daa yombuta man de Lamine loolu loolu nga wax laay dëggal parce que li tax ma koy dëggal mooy damay def plateau ak Zallo chaque vendredi bi mu bëree ak Siteu ba pare après Zallo gis na écho yi gis ni ñu di wax Zallo ne ma gars yi li ñuy wax ni waxu pour moom du wax ju tegu quoi ay Lac de Guiers du bëree du nangam mu ne ñoom ñuy bëree ak moom nañu wut solution buñ ko daane. Hmm. yaa ngi dégg mu ne loolu moo jaadu maanaam mbër mi du bëree. day défendre ko. mais utal solution boo ko daane. waaw mais nag ba tey ñoom mënuñoo am solution buñ ko jàppee manipuler ko daan. ko mais boo utee solution mu tëj solution boobu. de de de de am na ñoo am na ñoo xam ne bu ñu la dëgër la dëgër bu doon bëre ak Balla Gaye du niil de. Ah, moom foofu la voilà wallaay la même rëg rëg bi boo ko boole woon jël dina am par force. force jël bu jëloon Balla Gaye jël dina am bu jëloon Fra itam jël dina am par force. te ñooñu lay dépendre rek. déedéet te ñooñu lay dépendre rek. parce que dañ bu ñu ñëwee def comme moom yegg Mamadi Mamadi. bu ñëwee def comme moom du yéen. loolu def ñaar ñaara la de ba fii moromam yegg mënu fa lii moromam am bëreek roi des arènes mënu ko am. muy lan. benn premier premier bi indee indee indee indee na laaju laaju laajoon ko. problème mobilisation problème mobilisation. loolu moom laa koy laaj. loolu moom. beneen bi. initiative ya mu doon jël 2005 2006 2007 ba 2008 jëlatu ko ci. léegi maama de dama lay doon combat bu mujj bi bëggee ñëw naan ay ay ay bu doon bëree diw diw bi ñu ca diw moom lay dépendre. waaw léegi dama lay laaj mobilisation par na mobilisation la laaj guerre. waaw Bombardier day lu laaj du du mobiliser. mais Bombardier bu ñëwee Bombardier bu ñëwee bu ñëwee jàmm jeex. non côté mobilisation la Bombardier bu ñëwee wa d' accord mais bu ñëw bu ñëwee. Bombardier bu ñëwee jàmm jeex Hmm? combat bu ñëwee jàmm jeex foo mu dox ci sa a xeex bëre. dëgg bu wér a wér. mais combat mbeeg Siteu loo ko tuddee kon. combat ban. bu mujj bii nii. combat mbeeg Siteu. waaw nañu waxante dëgg li Boucar wax li Boucar wax dëgg la làmb dafa naqaree waxe waaw comprendre nga baax a baax bëre nañu ñoom ñaari ñëpp waaye ki gën a bëre dëgg dëgg dëgg am mérite mooy mooy mooy Siteu. déedéet. contre la déedéet contre a non waxuma ko Ndiol jox victoire de. Ah, effectivement combat kon kay a kon kay. seetaanoo combat. combat boobu la fa la de guerre moo bëri combat bi. man nag fi ne nii moom lijjantiw ma saani pool li may wax moom sa waay man la engage mm-hmm. tey bu ñu jàkkaarloo waat yow nga ne ma dellu ci ma dellu ci mais. combat boobu la déggee deux moo dirigé combat moo dirigé combat ma dellu si waatoon fii tey wala ma toog sama plateau loolu lay wax. non combat boobu la déggee rek ko dirigé foofu moom ànduma fay. d'accord première minute yi. ba mu jeex la déggee deux moo dirigé combat ma si première dix minutes yi fan la si bëree combat bi si dem na ba si dem na ba surux ci biir Lac de non loolu mooy ci loolu foofu Lac de Guiers daf ko war a exploiter dëgg. Mamady benn côté benn côté laay d'accord ak yow. waaw xam ban côté laay d'accord ak yow. bi ñu doon wax naan combat bi. warul mën a am cinq minutes combat bi waru ñëw mitaa te Lac de Guiers dumawul Siteu daan li mu niil ak Lac de Guiers ba Lac de ko par avertissement loolu mérite la ci Siteu mais la fait que action ya fa am xeex ba fa am Siteu gaa doon na fayu mais bu arbitre sifflé Lac de Guiers mooy bi Siteu dem ci saako yi première dix minutes yi Siteu da koo bëree ca làng ga dernière dix minutes bi moom la Siteu bëree ci digg géew bi. man lii laa seetaan kon initiative yi nga xamante bi nii tey bu ñu doon nommé ñu ne ku nekk cinq pour cent wala 10 pour cent dañuy jox la daguerre 15 pour cent jox Siteu 10 pour cent. d' accord ma ak yow. wallaahi lazim. d' accord ma yow. Ah, waaw wute gis-gis pour moo waral marchandise di jar pour man dafa am Siteu ko def. Hmm. Siteu dugg la jël na initiative boo xamante ni sax. non loolu ak soo ko mujj la action bu mujj la mooy bi ko Siteu dóoree mel ni lu kaaw mu daw song ko. ngoobu ko foofu Lac de Guiers suruxal na ko fàq ko ko mais foofu ko mën daal man daal war na am combat daal. war na dëgg tey war nañu ko jàppale surtout ak situation yi nii. man man ci côté boobu sax laa doon ñëw quoi ci côté boobu laa doon ñëw. xam nga mhm. problème bi mooy Lac de Guiers 2. et puis problème bi mooy làmb Babacar nga baal ma da nga fiy tudd ay nit di leen tiitaroo di leen sagoo saa su ne. Mhm. te maanaam taxaw bi ñu la war a taxaw ah, duñ la ko def. waaw loolu am tey ñuy dund sa kaw. waaw ñuy dund sa kaw ngay eggali seen tur foo xamante ne wóor. ah oui la dëgg dafa maanaam dafa war di bëri dafa war a am combat comme bëri yëpp. ñi nekk si ginnaaw Lamine damay def foofu benn kii rek ñi nekk si ginnaaw am tey jii nii. mën nañoo jeg saa yu contacter ay promoteur Babacar. la dëgg bu fekkee ne day bëree bien bi gën a cher day nekk 5000 francs tey ñi nga xamante bi ni du tudd turu kenn comme Lamine ni ko wax di la jàllale seen promotion mais am na quatre personnes yoo xamante mi ngi leen di tudd ci télé bi ay kilifa lañ ci dëkk bi mm-hmm. tey ñooñu bu fekkee ne ànd bi la dëgër ànd ak ñoom dëgg la mm-hmm. tey man mësuma ci seede quoi parce que xaw ma seen diggante xaw ma nu mu demee mais bu fekkee ne ànd bi dëgg la ñoom tay war nañoo mën a taxaw imposé wu ne promoteur boo tëggalee Lac la Guiers ñun dina jël man dinaa jël 2 millions jënd ko billet kenn dinaa jël 3 millions jënd ko billet kii ne dina jël 1 million 500 jënd ko billet. wute keneen ak keneen moom mu ne dinaa dagg sama cachet temps mm. jënd ko billet. Mm. lépp ñu jox ko promoteur mais day am combat. xam nga parce que làmb foofu la toll côté mobilisation bi ma ko doon laaj Babacar. Mm-hmm. tey laa ci gën a mën a dellu parce que moom la bokkar miy wax. parce que fii tamit gis nga Diop déedéet Balla Gaye 2 bu teglee trois défaites wala quatre défaites du manqué komba mhm. parce que saa boo ko tëggee réew mi yëngu. Mhm. comprendre nga mhm. Eumeu Sène lu mu mën di teglee du manqué combat. tey tafaatin mii gis nga ko. dernier combat mii nii. Gris Bordeaux lamb yi gën a fee Sénégal Gris Bordeaux. waaw dëgg de. day daanu de. mais lamb yi seetlul moom ak Baboy ci amitié. seetlul moom ak Bombardier. seetlul moom ak Balla Gaye deux fois seetlul hmm. moom ak Eumeu Sène six mars wax ñaari yi gën a fees moo ko gën a fees ci Demba Diop ak Léopold Senghor li ko daggee man ma commencé seetaan lamb hmm. wala 2011 ak léegi lamb yi fi gën a fees 2011 ak léegi parce que waaw xam nga xam nga xam nga Léopold Senghor daa daa arène nationale. duy na ko ñaari yoon nag. voilà moo tax moom. Baboy moog Baboy moog Balla Gaye moog Balla Gaye. ma ne la 6 mars 2011 ba tey Lamine boo xoolee bi ñu la wanee image yi. Mhm. ci bi la ko kii bi wanee da ngay da ngay yéemu ci yàlla. 6 mars 2011 Babacar ba léegi. Mhm. combat yi fi gën a neex ci VIP yi gën fee xaat. Mhm. làmb ji gën a jeex am waxtaan. am supporter Gris Bordeaux doo ko bëri. waaw léegi loolu nag moo tax te yu ci ëpp da koo ñàkk. waaw léegi problème bi te ba tey mi ngi am combat. waa léegi problème bi mu daan tax xam nga problème bi lan la problème mu lak lak encore une fois man li may wax rek xam nga tey mbër mbër mu ne dafa am méthode booy bëree am nu nga xam noonu ngay aborder sa ay combat lag de Guiers numéro 2 ak Balla Gaye numéro 2 ñoom ñaar ñoo bokk way mais bokkuñu nu ñuy aborder làmb bokkuñu nu ñuy bëree bokkuñu nu ñuy waxee is ay déglu ma lay wax dafa am ci lu bare bare lu ñu wuute tey li daan Balla Gaye daanu Lac de li daan Balla. dëgg la daanul lag. dëgg la ndax problème bi mooy. Balla Gaye numéro 2 daa nekk mbër boo xam ne buy ñëwee moom. ci géew bi nawul ci boppam waaw waaw moom moom moom moom moom day jël initiative bi léegi léegi léegi léegi. Ah ah maanaam tooba saxal mbaama suli la lay def. Ah, est-ce que ay dégg lu ma lay wax. Lac de Guiers numéro 2 nag ci kaw tooba saxal mbaama suli ci biir bëree boobu moom. Lac de Guiers dafay défendre mais ci kaw défensif am na ci attaque am attaque bi mooy yow boo juumee. bi mu gënee nag jëm mag comme fi Mamadou c'est moom jeune la. Hmm. boobu ah, boobu bu ko xam ne xale la mais Lac de Guiers nag léegi. bu yegsee fi mu yegsi am na attaque yoo xam ne nii même bu ko daan def boobu tey mënatu koo def. Hmm. yaa ngi dégg loolu nag boo ci boole nag wax ji ah. Hmm. ñu bare bari tey sénégal yi boo defoon sondage ci biti ñu bëri dañ naan Lac de Guiers numéro 2 day défendre du bëree du bëree du bëree. mais boo déggee Mamadi Samb wax la loolu mais mbër jëlagul initiative dem jëli ko. bëree def ko li nga ko bëgg a def. daan ko jéggi ko pourtant am na ay mbër yoo xam ne nii def nañu loolu ay mbër mbër buñ ne day défendre nga fekk ko fa yow dindi lool mu doon def bëri ci koom daan ko dem mbër da koy ah def. Ah mm-hmm. ba booy ñaa sax. doon wax du bëri du bëri du bëri. te li may wax chaque jour rek man dama dama. booy ñaa ba maam ak tabatin ngay seetaanaat Lamine Lamine xam nga dafa am loo xam ne Lamine dafa am ca bëri booy ñaa ko def booy ñaa dafa am loo xam ne maanaam dañ ci gaaw dañ ko gaawa wax ne mbër mi du bëri du bëri tey adversaire yi mbër mënoo di màgg sa kase di màgg est-ce que yaa ma lay wax ah, yow ngay màgg sportivement sa at di dem ba hmm. pare nga bëgg a mel ne xale boo xam da nga am vingt ans di doog a débuter carrière loolu yombul dafa am ñoo xam ne seen bind sax permettre leen loolu mhm. Boy Niang numéro 2 ku ko xam début carrière xam ne kii ba maanaam ni mu doon bëree mais bi mu duggee nag ba ci biir léegi nag ay sement lay teg sement yooyu muy teg nag saa bu bëree jotee dina ci bëre ak yow contre mag Yékini Yékini ko mag fuuf te Yékini ko xeex ak moom attaqué ko kan la Lac de Guiers ah, mais bañ jàppante loo ci gis wala yow waaw ah, waaw attaqué la ko def. waaw mais terewul ki mag moo attaqué. d' accord naa Mamadi xam nga. Ah, kon mënu ma comprendre Babacar boo jëlee. non mais loo mais noo non loolu loolu. yow daal da nga jàpp ni ñàkk bëreem moo ko tere. ñàkk loolu la. du loolu de war a jël du ko jël la. d' accord ma loolu de man d' accord ma loolu de. benn mbër benn mbër ko mas a de. benn mbër ko mas a dàq ji li coow li bëri bëri. tey nag gars yi mën nañoo yaakaar ne damay jënd glace ak yooyu. non non dama lay wax non dama lay wax. non non eh, dama lay wax li ma gëm laa lay xam nga. dama xalaat. waaw da ngay wax sa xalaat Mouranda dañ sa xalaat lañ soxla sa xalaat boobu wax ko mais jarul nga justifié Mamadi dama damaa yolomal géñ gi waaye ba tey bàyyi moom loolu damaa yolomal géñ gi bi combat mi ma gis mu bëre ko yépp benn bër laa mas gis mu dàq ji kooka ay arrêt mu daw génn géew bi muy Modou mooy defet bi nga xam ne am na dañoo xeex ba ca lànk non eh Modou Lo ci biir géew bi la ko jëlee dàq ji ko waaw dàq mais da doon riposté boo dégg ma ne dañoo xeex maanaam su Modou xeexee day riposté ci kaw Modou ah. ba ñëw ba ci saaku bi Modou gëddaat ko mu yëg saaku bi génn génn ca biti ñu jox ko avertissement waaw mais à part loolu yeneen yi ci des yépp ci biir géew bi la bëree gis nga mbër tey Lamine li mu wax laay wax bu fekkee ne gars yi da naan ay mënuñu laa daana naan wallaay lancim am na mbër yoo xam ne da nga leen a dajut la dëgg bu bëree nag Ama Baldé mii kese laa la wax <laughs> jël day am jël day am gàng day am dafa am façon mbër yoo xamante ne gis nga gis nga tey jii nii ah, ah. kii di Balla Gaye numéro 2 kii di Omar Kane Reug Reug <laughs> mhm. kii di Boy Niang la dëggeer tey bu bëree waata nag Boy Niang suba mhm. mën nañoo niilaat mhm. bu bëree waata nag tafaati nii mën nañoo niil même moom ak Gris Bordeaux sax am na nu muy dépendre ci Gris mën nañoo niil mais mook Franc du ñu niil non su bëree Gris moom du ñu niil mook mook Balla Gaye 2 du ñu niil mook Ama Baldé du ñu niil li maa la ko kon nag ay mënuñu koo daana yooyu wax ju yàqu la wallaay la asim buñ la chargé ay ku yemale am ak ñàkk. waaw loolu laa la wax moo tax bu bëreewoon ak giri moom bu bëreewoon ak giri moom mat si doo ko fa gis moom. 4 avril dóorante dina am de. 4 av doo nga fii bëree mbër mbër yàgg mbër ma tëw koy jékki daan boppam ne wax mu war dali fële moo ko